ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonantam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñëw di nuyu kilifa diine yi fi toog yëpp di nuyu tamit kilifa aada yi fi toog yëpp di nuyu monsieur le mi toog di nuyu colonel bi toog it di sunu kilifa te jaboote di wax ni dañoo jël kàddu rekk pour am luñ bëgg a jottali loo xam ni dafa jóge ci alaaji Pape Sagaye Guèye mii lii fi imaam wax léegi jóge man mënatuma tee dolli dara waaye seeka dali sër moom ñambaas du ko yàq kon moo tax ma bëgg a ñambaas mu ni bis bi ma dégg ko ci waxam mu ni du bisu tiijaan yi du bisu xaadir yi du bisu murid yi waaye ku xool tànt bi rek di nga xam ni bis bi wane na boppam ci taxawaay boobu ndax saaga yi mii taxaw man bi may dem armée di ko fa fekk caporal chef laa ko fekk mu nekk man caporal chef laa retraité kon affaire bi amna différence hein amna décalage caporal chef la fek Aladi Pape Sagay man ma du dugg armée 84 ñëw retraité caporal chef kon affaire bi amna différence Pape nak ni mako xamé nonu la koy gissé wat suba parce que ni la mel bax baax lu amul baax am bax baax lu nag dina taxa bax kon yal na yàlla baaxal ñu mais Pape dafa judd ci baax yaru ci baax yàggu ci baax jotaay bi nag du mën a bañ a mel nii ndax jotaayu soldaar la soldaar dafa mën a sot bu nee soldaar baa ngay xeex billaay bu mbokki soldaar yi mi génnee xeex bi jeex moo tax tey jotaay bi wane na ko nga xool tey du soldaar si rek ñoo fi ne mais seeni soxnaa ngi fi seeni doom a ngi fi soldaar a mën a sot surtout nag sotti bisu diine bisu alxuraan bisu lislaam soldaar ñu bari dañ koo gis rek teg ko soldaar nii dafa ni moom waaw li jëmtiwul lu jëm ci diine wala lislaam mais soldaar diine ko samp lislaama ko samp man maa la wax lii parce que boo xoolee soldaar ak Baay Faal benn lañu ca laxasaay ba ba Sëriñ Tuubaa ñëwee ni daara ni laxasaay ni Baay Faal soldar napoleon dafa créé ni ah segam serigne bi dañuy ndigal ñu ni ndigal mu ni mu kon man tam na roy ci serigne bi kon lolo tax soldar ni mu mel mu mel ko sa gay nak day gërëm ay mbokam yi mu joggé ndol Grand ta yarondo ak ñom waaw di gërëm it ñi nga xamanteni ni si ño nekk ci cité comico bi di gërëm wa ASC comico Bara Samba Diop a fi Abdou Sakhor Ndaw fi te imam Sarr mii tamit jiite ñu vraiment li ma bëggoon a wax dafa bari mais li duuf ci nag yi moo xajul ci cin li waaw moom nag mi ngi gërëm tamit ay classe am ñi mu demandool armée tey boo leen génnee ci géew bi ñu des lu ba bari kon vraiment ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm soxna si nee ñi ngi sant yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa nday si mbeng waa kër yaa ndey si mbeng yu ñu mare ne yu ñu mare ne bis bi ñoo teew nii maa ngi ci kàddu ci seen tur ñoom ñépp samay mag ñi ngi ci ak ay rakkam mooy waajuru ajaa Jaw ñu koy dàkkantaleeg yaa Awa Jaw ñu hommage le bis bi yaa Awa Jaw mi daan teew fii ñingi sante yàlla julit yonante bi di sante suñu ñaari wayju di sante ya sayida amuñu fayam yàlla mo am fayam yàlla nako yàlla fayal bopam ndax bis bu melni kuñ kuñ ko tuddé sante yàlla mënoon nañ la tuddé lenen nga nek ci lenen wala mu nek lenen waye alquran kadem ñu tuddé lako dañ koy sante yàlla bu baax a baax am ci kontaante lool ndax yaa awa mi ñu ko hommagé ne première édition ba si ñu jonn yàlla tey bi mu jiitoo mësuñu absenté booleeg teraangam nag ba ñu ràññee ko moo tax ñu defal ko hommage bis bii Adja Jaw dañ koy bàyyi ak yaa Seyda ak yàlla dig ko dénkaat bu baax a baax yaa sayda mi ci jàng mi mi ngi ci jàppale gi mi ngi ci téye bi mi ci lépp ci aja deeloo nañ deelu nañ di ko dénkaat aja di ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala daaram ji no doon ay daaray daara yu bari tas ci réew mi di sant jëkkëram borom këram ndax ndax moo ko may temps ak jot ba mu ñëw di jàngal jigéen ñi nee na waa daar seen nuyoo teg nañ ko ci loxo yaa sayda yaa sayda Khadija di nuyu muqaddam yi ci dëkk bi yépp imaam yi ñi kilifa yi ci dëkk bi ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di santaat yaa sayda ñi koy sant bu wér a ndax lim ñu defal amuñu fayam yàlla rek lañ koy bàyyal moom mi am fay yàlla na ko fayal boppam ba mu doy ba daaraam di doon ay daara daara ñépp am ci di nuyu ñépp di ziyaare ñépp li ci jub nag ci sun borom la bàyyee ko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 يا أيها النبي إذا تلختم النساء فتلخوهن لعدتهن وأصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاسخة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم واخيموا شهادة لله ذلكم يؤذوا به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يخدن وأولاة الأحمال أجلهن أم يدرن حملهن ومن يتخ الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم من الشيطان الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تداروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفهوا عليهن حتى يدعن حملهن فإن أردنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تأسركم وإن تآثرتم فسترضع له أخرى لينفق سوسة من سعته ومن خدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فساحت وبال أمرها وكان اخبه أمرها أسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله na ngeen def ما شاء يعمل من بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا صدق الله العظيم allahu akbar allahu akbar nono Saage yi nag allah ji rus nañu waaye yow yaa def affaire waroo woon taxaw fii. na leen ne allahu akbar. may leen ma ko loxo waay may leen ma ko loxo tuuti waay waay. kan la koy léegi. bismillahi rahmani rahim. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنه ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز عليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم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 من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما خدمت أيديهم والله أليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaluun sadaqallaahu laziim mbokk yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di am mbégte ci teew ci jataay bu mel nii defe naa ne jataay bu mel nii ah man day musuma koo gis fenn fudul fii jataay boo xam ne conférence la boo xam ne jigéen ñi ñoo koy def taxaw di tari wax dëgg yàlla man fii rek laa ko gis man daal mosuma koo gis fenn fu dul fii loolu rek nag buñ ci yemoon sax mu neex mais ki nekk di góor góorgóorlu ba mën a tari li ma fi dégg effort am na bu rëy rëy rëy ci kiy tari waaye effort bu rëy am na tamit ci kiy la te ñoom ñaar ñëpp nag am nañ tiyaaba ju rëy ki nga xam ni léeg nga jàng seedaane la waxuma la loolu lii laa wax nga jéem ba sonn mu ne waxuma loolu lii laa wax gis nga jamono boobu sa tiyaaba ci la gën a bari keroog nga gën a sonn ci gàggant bi ak ni ko prononcé du noonu xëccal fii fii waroo koo xëcc loolu mooy njàng bi loolu bu génn ci njàng dara desu ci waaye bu la seytaane mën-mënee ba nga ne damay toog seedaa daal daa mel ni man la ko beral lu ma wax mu ne du noonu fekk yow la saydaa bëgg nag ndax bu ko neexoon bu li yomb mooy mu bàyyi la rek noo wax mu ne noon la mais bu nee du noonu nii la loolu mooy mi ngi def liggéeyam kon saydaa yal na yàlla fay la ñiy jàng tam yal na yàlla gën leen a dëgëral bala ñuy jàng ñu gën koo mokkal yowmal qiyaama bu nu demee aljanna yàlla nañ fa dem ku ci nekk sunu borom danaan la léegi iqra warqa fa inna manzilaka fi ljanna inda axiri ayatin taqra'uha léegi nag ascenseur mooy yéegal nit ñi ci àjjana yi gën a kawe assenseur bi mooy lan kenn ku ne la nga mokkal ngay tari soo commencé tari mu déclenché wu la nga mokkal bu jeexee mu taxaw nga génn dugg kon nag kenn ku nekk soo bëggee ci étage yi gën a kawe noo gën a jàng alxuraan rek sa tiyaaba sa yéeg ci aljanna gën a kawe te say tiyaaba itam dañu yonante bi dafa ne ah, benn araf boo jàng fukk la ci tiyaaba benn araf boo jàng fukk la waa su fekkente ne nag benn be waaw alif miim trente la su fekkente ne maanaam ligne bi boo jëlee kaamil bi quinze ligne la benn ligne bi su fekkee benn ligne bi dafa am trente araf ëpp na ko sax mais damaa jël noonu rek dafa am trente araf araf bu nekk ñu fay la ci dix 10 yoy nga multiplier ko par 15 ñaata nga kon bo jangé ñaari pass ñaata nga bo jangé jàngee amayata bam jeex ñaata nga am ma mbir mi fi la kuy bay ñewal bay ci fi ndax récolte bi fële la qiyam assalamu alaykum ma sha allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها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 gaa ñi nga xam ne gëm nañu yàlla su woote borom bi àddootee bésub àjjuma taxawal leen njënd meeg njaay mi te jublu ci jaamu yàlla boobee ndax yiw la ci yéen bu ngeen xamoon bu julli bi jeexee nag tasaaroo leen ci kaw suuf wuti lu ngeen am ngir ngeen texe waaye suñu borom tabaaraka wa taala wax na sallallahu alayhi wa ne ko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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من ديارهم لأول الخشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانئتهم قصونهم من الله من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لأذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قتلتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليؤذي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من قيل ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى حسنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان آخبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متسديا من خشية الله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 bu len yalla maye sar yu guddi ngeen meuna taxaw ci mbolo mu tollu ni wax ko ci kalaama arab bu leer nañ quraanan arabiyan mubinan sant len yalla tabaarak wa taala mais geureum len ki len jangal parce que talibé biko serigne sëriñ daara ne nga tok jang bu nako ko yow da nga tok ak man bo beugé ma jang fi ma tok da ngay tok ak man di wax may top sa kaw ma xam ne yi ak alquran ji ni mu leeree daj nañ coonu bu métti waaye ki leen jàngale daj na coono bu métti mais nag pay ak yàlla jar na ko yal yàlla sàmm ñëpp ñu ci soxna Aminatu Diop Fall suratul hadid Aminatu Diop Fall mu waaj njëw bu ceer na toogee mu continuer tari mu ci gaaw بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والزاخر والباطن وهو بكل شيء خليل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلا الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جهلهم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لكم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم gis nga ñëwaat na mi ngi battre macha allah macha allah Fall eh, dañu nodd démb la yónni njéemé mi indi booli mat leen double booli ne def naa ko ci ndogu bi mi ngi ànd ak papaam ngi nii toog ci kaw faal ñu ngi ñaan yaayam el na ko yàlla wéral delloo si ko ci sagoom ñuy dalal bu baax suñu marraine soxna Ramatoulaye Wan Adja mi ngi ànd ak ay naataangoom ay xaritam yépp wuy si bés bi el nañu ko yàlla fayal noonu la ñuy dayalalee taa awa négri suñu xarit bopp waaye na duñu ko dalal dañ koy ñaanal gudd fan ak wér Thierno moom moom bës bi mooy boroom bés bi te jig na bës bi njaay yow loo dund doyul ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér macha allah di dalal papa Ousmane sama mag sama xarit di dalal alxuseynu yaaya mi ngi jóge ba Saint-Louis sama frère la oustaz xel day fattu waaye Thierno Ousseynou min njaaf kinima no feewi min siftor siftorde gila ko kono ada andi tan ya garta o seydi dieng yallah yooɓe moƴƴere min calmini min juurima seydi dieng wardatan kaddihan audu billahi min asheytani rajim yursalu alaykuma suwasun min narin wa nuhasun fa bi ayi ala ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤقت بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكسبان هذه جهنم التي يكسب بها المجرمون يطوفون عليها بينهم من آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان سواتا أفنان بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن حاسرات الطرف لم يدمزهن إنس قبلهم ولا جان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 قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع البصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعزون به والله بما تأملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوقه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلا الذين نهوا عن النجوى ثم يهودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحصن الذين آمنوا وليس بدارهم وليس بدارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمخصمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك أنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء وفي الأموالهم حق للسائل والمحروم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم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 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالحول كجهر بعضكم لبعض أن تعبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله عليم حكيم آه، وإن طاح يا أيها الذين آمنوا آه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بعد إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعملون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليهم وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك عجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للصائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض آتياته أن أو كرها قال تأتينا طائعين صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان نجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالحسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الحسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان يكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقا وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المسرحين ورب المهربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتحيان بينهما برزه لا يبهيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعات في البحر كالأحلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبحى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفوه لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تحدم من ذنبك وما تأقر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويعذ ويكف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 عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا عظيما إِنَّا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنساكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأخطى خليلا وأكدا عنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبه بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاء الجزاء الألفى وأن إلى ربك ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين سكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النساء الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب سرا وأنه أهلك دن الأولى وثمود فما بقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أسلم وأتقى والمتفكة أهوى فخسى ما خسى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النصر الأولى قاصفة آسفة ليس لا من دون الله كاسفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتدعكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا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 له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبقون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الصعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واقدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رقمته والظالمون ما لكم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يقي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاسب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد الخخار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك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 ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنصروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ما خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا مبين أم yàlla guddal saw fan soxna Amina ñi ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal saw fan defal na ko ak mboole mu jullit ak ñi ngi ko bokkal ci barki Seydina Mohamed jëmm ji taxaw soxnaam sii di nogoy alxuraan gi mu tari fii jar na jóge fii di dox ba màkk ñu pare ne ko bis bii boole ci kuy bokkam rek mi ngi fii ci tànt bi kuy kër ndeyam wala kër baayam nga dëkk ba Mboora dëkk ba Cees dëkk ba fépp woo na la ci bis ci bis bii ndax lii rek ko ñor alxuraan rekk ko ñor moom rek ko mën a yëngal nee na daal ku ma képp ku ma lebaloon nag ma fay si ci bis bii ku ma lebalugul woon nang ma lebal si ci bis bii te boo ma ci lebalee dinaa la fay lool lii la taxaw wax alhamdulilahi rabbil alamina jaw jërëjëf ndax lii nga def sa soxna si ba mel nii jaarale ko yàlla jaarale ko ci soxna bint Faat Bintu na sa Jee mii Aminata Jang maa ko koo xam toir fa kàlla lii mu def fii ak li mu def ci dëgg dëkk bii genn góor guy borom kër amul fayam képp ku dib julit amoo fayam xam nga ku ko mën a faya yàlla sunu borom borom baar mi nga xam ni si gëmmul nelawul moom lañ lay bàyyil te koo koo ni bàyyee naag yàlla bàyyee nga ko mbër yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi guddal fan yi ñépp kontaan nañu fii ba jéggi tëli ba ba ca marché ba ñii dañuy romb gàddu seeni saag di daw di dem di jëm si fii ma xam ni lislaam rek ay dëgg te alxuraan rek ay dëgg kon jërëjëf jaw mii day kontaan na kuy mbokkam rek woo na la ci bis bii ñi ngi ñëpp teew ñoom jaataak ay dëkkandoom ak ñëpp ci suba ba léegi ñi ñi ngi nii toog ak waa Mboro yi ñi ngi nii jóge ba Mboro ñëw toog kon vraiment mi ngi sant bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal aji nogoy ak ñi ngi ko bokkal ñëpp ak ñi fi toog ñëpp yàlla na yàlla gën a yokk xel yi ah nun day bëgg na nu kontaan na nu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf min ash-shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xaamiim tanziilul kitaabi min allaahi al-aziizil aliim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تخلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يأملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربهم ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وخيم السيئات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 macha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءوا يأتكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن من بعد إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاءت وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رطاغين مابا رابسين فيها أحابا لا يزوهون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وحصاها جزاء وفاها إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كسابا وكل شيء أحصيناه كتابا فسوهوا فلن نزيدكم إلا غزابا إن للمتقين alaina mafasa hada ika wa ahna ba wa kawaiba ataraba wa kasan diha ha la yasmauna min rabbika ata an hisaba Rabbi samawati wal ardi wa ma rahman la yamlikuna wa minhu xitaaba saada te gën ni résultat bi yàlla rek moo ko yore waaye moom rek mooy fay moo tax mu fayee leen li dëgg dëgg dëgg ay jàmbaar ngeen imaam Ibrahima Diop imaam Ibrahima Thiam sànq ba tey dégg ngeen Oustaz Abdallah Sané feddali ko dëgg dëgg ay jàmbaar ngeen yàlla fay leen kontaan nañu ci yéen buñ leen jàngaloon ngeen di nelaw rek su ngeen ñëwee fii tari benn aaya gag wàccaat su boobaa lii yëpp duñ ko am waaye oustaz ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ñu paree parrainé ñu ngi leen di gërëm di leen sant dangay gis ku toog doo bëgg jóg ndax ni jotaay bi mel na yàlla fay leen waaye ñu ñu maree marrainé itam yal na yàlla fay leen ñu ngi leen di jaajëfal di leen bége bu baax a baax yàlla na ngeen fi yàgg lool ànd ak wér noonu la ñuy gërëmee jumel hajj di ko gërëmee Makka 2023 di ko gërëmee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yàlla fay leen oustaz damay am tuuti rek lu may joxe mama fay sa kàddoo ngi nii mama fay sa kàddu mi ngi ñëw ñuy jox Aïcha Ba ñoo la jox lii rekk ci bég ci yow ci wuutu gi ñuy wuutu ca daara ja noonu la ñuy joxee itam a Fat Kama macha allah ci taxawaayam ci taalibe yi imaam sànqe lañuy jox kàddu waaye imaam laataa ñu lay jox kàddu dafa am xéewal gu ñu dab te yow nga am ci wàll yàgg koo ñaan kon su amee dañuy lëkkale sa kàddu ak joxe xibaar boobu waaye ak solal la mbubu mi ah moom taaruwul macha allah ah ah waaw rafet na de. mérité na ko. nice na de. waaw waaw. cool ko dénk ko solal nag imam Sànqe bala ma lay kàddu gi. dafa takk ñaareel fan yi waaye mu ne ñaareel bi lim ci bëgg dëgg amu ko ci mu ne kon il faut mu takk ñetteel ndax li mu bëgg ci alxuraan bi dëgg bu ñetteel bi ñëwee dina ko jàngal aaw bi nee na nag yow la bëgg nga ñaani ñetteel bi ñetteel bi mooy lan Khadija day ziyaare ji baytullahi al haram ngeen yàq sama sama bëgguma ngeen yàq sama sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Mbaye Khadija Mayel Khadija Mayel jërëjëf jërëjëf jërëjëf ما شاء الله macha allah macha allah jërëjëf kontaan nañu sallallahu alayhi wa sallam. ku def lu rëy dama ko bàyyee daara ji bàyyee ko soppe dama leen di wax ni képp ku ko teral rek man nga teral ndax xaal pulaar yi dañuy wax ni sabi wa sabaabu sababu yàlla jaarale ko ci samay loxo ma won ko soppe yi mu wutu ma ci wuutin wu rafet mm-hmm. bu ma wuutu woon wu safaanoo du am lii tey bu fekkoon su ma jàllee mu faqastal ma ma daanu du am lii tey bu fekkee bu wéeteeg ñoom ne leen Seyda aka bon du am lii tey kon Ngom Déthié loo am yaa ko mérito waaye ki ko yóbbu màkka sama mbébét la jël man bés bi ma demee di ñaani billet bi ci la awa kanute ñëwee ne dem na di maquiller président de la république Macky Sall ne ko lenn rek laa lay ñaan nga may ma billet damaa am sama yaay boo xam ni dama ko bëgg yóbbu Màkka léegi nag mu ne ko kon jox bàyyi fi sa numéro mu bàyyi fi numéro mu xëy suba fekk ma hangar bi indil ma billet bi loolu mooy demuk Màkka Khadija yal na nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm kon imam Sakhe kàddu gal ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ربي ولا نشرك بك شيئا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولين يجب أن أبسط تبرم سبحانه وتعالى. سقيه واليمك يباري ينجي دخل. تبي سجن فس ما يموت سجن يجون بفك بسبي. منك سفك فني جنس أبني. tombeeg fukki guddi yi gën si at mi luñ si jaamu yàlla nañ ko yàlla nangu fulal ñu ko wërsëgal ñu fekkewaat ay jataay yu ni yu baree ànd ak wér ak sutura di julli si ngeen di mi defaale mi nga xam ni moo ñu teg ci wiiw yoon mu yoonu jub yoon wi moo ñu permettre ñu nekk ñu ñëpp ay mbokk bëggante boo boole woon àdduna li ci biiram pour fesal mbégte mi nekk ci xol yi bunul nekk diine rek moo ko man law anfaqta ma fil ardi jamian ma allafta bayna qulubikum cofeel bi nga xam ni moom ngay liir ci kanam yi li tax Cerno Hamad di kilifa gu mag bàyyi ay soxlaam ak koor ni mu xate ni programme yi bare mu jël jot googu yëpp jox ñu ko li tax Ya Seyda boole si parei imam sànq du ay dërëm diine kese la di sant ñëpp ndax yan bi nyom ñii nyok tek sama samay ay ma yi dëkk ci cité bi ni ma yow lañu imam ratib waaye seetaanuñ ma benn yoon ni ñoom yaa Xadija jàppale yaa seydaa ba lii taxaw noonu lañ ma jàppale ñoom Imam Sané Abdallah Sané ñoom Biram Traoré ñoom El Hadj ba yen bi oyof lool jàkka ji nekk jàkka yi gën dund ci senegaal muy masjidu Shura kon bu sant di am si ñu war a jëkk sant laa bokk kan lañuy sant ki nga xam ni moom doo nga jara sant muy borom bi yàlla subhanahu wa taala moo ni wa ma bikum min ni'matin fa min allah bépp xéewal bu ngeen am yàlla moo ñu xamal ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuxsuha bu ngeen doon jéem a li leen yàlla defal si xéewal du ko mën a mbatal kon ñun dañuy sant rekk di jël nuyoo bi jox ko car nu Amaat mu tasaaral ma ci mbokk yépp di jiital ci sant bi yaa Seyda dañ koy sant en tant que xarit sant ko en tant que mbokk jullit sant ko en tant que rakk waaye sant ko en tant que soxna Dieynaba Aliou dañ ni derrière chaque grand homme il une grande dame lépp lu ngeen ma sant delloo leen ko ko ndax lii sama sag la man yal na yàlla fay leen yéen ñi koy jàppale xol bu sedd doy na ñaan lool lañ leen di ñaanal yàlla jubaale leen ak seeni borom kër seeni njaboot yàlla nañu leen gën góor koom jigéen yàlla na leen seeni njaboot gën ndax yéen ñu baax ngeen tànneefi tànn tànneef ngeen Imaam Sané wax na ko sànq yàlla na yàlla fayal ñu leen Alaaji Pape Fall wax na lu am solo nee na ñi nekkoon si daara ji tam ay empêchement ba toog la ñu la daara jee ko gën na ñëpp ñëwaat mu gën a fees di profité di leen annoncé Thierno Ahmad di sàkku ñaanu ñëpp jàkka ji dañ ko bëgg a yaatal budget bi quatre-vingt-six millions la quatre-vingt-six millions nag lu yomb yàlla la madame la présidente ñu ngi la koy yóbbante fu sa kàddu mën a àgg pour ñu dugal seen loxo dañoo bëgg déwén bu ñëwee quinzième édition ni ngeen fekke jàkke jigéen yi di woon ko ni fekke waaye jumaa jiit ni ngeen ko fekke du woon ko fekke noonu ndax dañoo jàpp ni ñun ñu fi dëkk kenn ku nekk sa kër am na lu fa yokk waaye néegu yàlla bii depuis dix ans nii la mel ñu jàpp ni loolu aw xas la si ñun ñu ànd ak suñuy mag fas yéene def extension bi tey ji war nañu def exposé wane li nga xam ni moom lañ fi bëgg a amal waaye yàlla dogalu ko waaye ngeen yéege ko noonu rek Thierno kenn que ni jàkka ji am nañu intention def ko extention def ko R plus 1 yaatal jàkka yi jigéen ñi def amal wutal leen seen autonomie ba pare def ko solaire loolu budget bi 86 millions la ñu wax ni moom la technicien yi wax ni loolu la ñi ngi ñaan képp ku sa def sa dërëm. yàlla na la ko yàlla defal ay escalier firdaws yi xaw naa gudd trop maa ngi siy jéggalu waaye doon wane xol bu sedd di féliciter parents yi eh, sëñ Diaw El eh, sama magu bopp Pape Sagay Guèye moom teraanga la ma yoreel at mu nekk retraité la retraité la xam naa lu mu am ndax ñoo bokkoon garat waaye at mu nekk mu teral ma koor gu nekk mu teral ma loolu ak mbaax la géey yàlla la yàlla teral maa ngi nuyu sama grand bële gën naa gis Ablaye dafa taxaw dafa dafa déserté woon <laughs> waaye comme ñi ngi gis Khadija yow mën nañ laa baal <laughs> di nuyu ñëpp di sant ñëpp Thierno dama doon tàmbali di gërëm yaa sayda waaye naa ko sotti def ko ñaan li matul ci wax ji ma jox ko Thierno mu mortelil ma ko samay mbokk yëpp teew nañ nag samay mbokk yëpp teew nañ wàllu ndey comme wàllu baay ndax yitte bu jox activité bii ñun ñëw fi jiitu 9 fekk nañu fi élèves yi sax ñoo leen fi jiitu loolu lu rafet la euh, papa am di mu nekkoon xalif général sama néegu ndey ñëw na fi indi na loxoom ay rakkam la fi bàyyi papa Ousmane mi ngi toog ndax moom it ay yitte moo koy xaar fa mu jëm. ñi ngi sant jigéen ñi ak soxna yi aw buuru këram kontaan nañ si yow bëggoon nañ nag nga tal yaasin waaye ya <laughs> taabee ñu ko mayoon ndako mu tare la yaasin <laughs> waaye taabee ñu ko mayoon <laughs> mi ngi si ruq ba moom it de bu xëyee yaasin wal quraanil hakiim mi ngi si de macha allah mi ngi jàmmaar de defoon naa dina tari xam naa li ma bëgg a wax bari na mais damay doyloo suñu mag ji di suñu kilifa yàlla na ko fi yàlla bàyyi ndax moom it mi ngi mottali kóllëre mënoon na wax ni Sadio mu boole woon Sadio dem na waaye dafa jël njabootu Sadio boot leen ba képp ku takkoon si saajo mu bootaale ko loolu nag kóllëre la te yàlla dañuy wax awfoo bil ahdi innal ahda maskaana mas'uula car na yàlla na la fi yàlla bàyyi si kanamu njaboot gi allahuma boo wax yàlla na dëgg daje ak euh, aminu malaaka yi comme euh, Thierno Mohamed Mbacke kaa ngi ubbil Thierno incha allah ñu jublu si kii bi ba bu ñu defee rek après ñu tënk jox sunu mag ji di ko sant di ko gërëm ñi ñoom ñooy borom jataay bi moo tax tudduma leen muy imam Ibrahima Diop di kenn si ñun waaye imam Baye Thiam sant rek ko yàq moom ak daara ji yàgg nañ lool kon loolu rek lañ doon ubbalee. Cerno bismillah di gërëmaat ñëpp di sant ñëpp marraine yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay jazakumullah xeera jaza kon mbokk mi bismillah tafadal mashkuran di sang ay néew di teew fépp fi nga xam ne góor mën na fa taxaw fépp fi nga xam ne góor mën na fa taxaw kooku nag bu ñu ko yàlla mayee kooku nag bu ñu ko yàlla mayee dañ ko war a téye suñu fukki loxo ku mu jàngal ku mu jàngal ak ku mu jàngalul yëpp ku mu dëkkandoo a ku mu dëkkandoowul yépp man nga tiitaroo ne Aminata yal na ko yàlla lafal cat yal na yàlla yokk ay atam yal na ko yàlla barkeel yal na yàlla barkeel njabootam daara ji imaam sànq mi ngay wax ni moom ak góor ñi ñoo tàmbale woon mu ne imaam sànq wax na ne moom ak góor ñi ñoo tàmbale woon wante yàlla nag lu ko neex lay def yeneen daara itam yal na yàlla yëkkati leen. ñu ngi ñaan mi ngi ñaanal yàlla yeneen daara itam yal na yàlla yëkkati leen. daara bi ñun ñëpp war nañ ji ñun am na jamono am na benn maire bu fi ñëwoon. am na jamono am na benn na may na daara bi terrain. waxoon na may na daara ji terrain. yàlla dogal mu daanu balaa loolu di xew. yàlla am na yeneen maire yu ñu fal. am na yeneen yu ñu fal. wala beneen maire bu ñu fal. am na préfet yu nekk fii. daara ji nu mu màggee. non lay dundee ay menaces. noonu te noonu lay dundé ay menaces. tey tey lay dundee ay menaces. lu tax ci ay xat-xat la daara bi nekk ay xat-xat la daara bi nekk. man jege naa leen ñoom. moo sëriñ bi nee na jege na leen ñoom. fu ñu nekk dañ ko loué. fu ñu nekk dañ ko loué. ku ko loué kii mi ngi bëgg nangu daara ji. kuñ ku ko loué kii mi ngi bëgg nangu fu mu loué fu mu leen loué. ndax daf ko bëgg a yokk. ndaxte daf ko bëgg a yokk. kon jigéen ñi. kon jigéen ñi. ak góor ñi ak góor ñi. nañu laxasaayu nañu laxasaayu. ñu dimbale nee Aminata. ñu dimbale nee Aminata. ci dimbale ko nu mu mën yoree daara. ci dimbale ko nu mu mën a yoree daara ji. ci wàllu pay. ci wàllu pay. naam ñi ngi ñu mën. ngi def lu ñu mën wante nañu yokk lu ñu doon def li bu loolu paasee loolu lu baax la de am na lu ko gën baax nag lu ko gën baax mooy am na nañu bureau nañu def délégation ñu dem ci autorité yi ñaan ñu may terrain fii bi nga xam ne foofu la ñu samp ñu ñaan ñu may terrain fii nga xam ne moom la ñu samp daara ji bu leen sàggan mukk ba ne Aminata ci leen bu mu leen sàggan mukk ba mu génne quartier bi téye leen ci sen fukki loxo. bureau bu ànd beeg moom. mom. bu ñu ànd ñek mom di liggey te ñukay def ngir yalla fexé len ngeen gis autorité yi. politiciens yi nga xamne ñu ngi fi nañu gis autorité yi. ñaan terrain bi nga xamne fofu lañu samp daara ji. suñu yalla maye terrain. ñun ñep ñu boole tabaxandor ko. mooy ñongloo daara lii mooy ñongloo daara ji. maa ngi leen di dénk loolu bu baax mi ngi leen di dénk loolu bu baax baax. ñaanal yàlla. ñaan yàlla yal na ñaan yàlla. yal nañ fi dajewaat déwén. yal nañ fi dajewaat déwén. ànd ak wér ak taal. maa ngi ñaan yal na al mi ngi na alquran. yombal li ma wax lii. yombal li mu wax lii. suñ ko amee. suñ ko amee. yal na ko alquran tabax. yal na ko alquran tabax. yal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne si moom la alquran wàcc. ñu ngi def tawasul ci moom. ñaan bi si suñu borom mu tegal ñu ñaan bi si loxo suñu borom. ndax mu yombalal ñu ko ndax mu yombalal ñu ko. ku fi ñëw indi fi ajo ku fi ñëw yal na yàlla faj aajo yi. ku fi indi feebar. ku fi indi feebar. yal na yàlla faj feebar bi. ku fi indi bépp soxla bu dul mooy yàlla yal na yàlla faj soxla boobu yal na yàlla barkeel leen yàlla barkeel suñu ngétte ñu ñëpp yal na yàlla saxal ñu si diina lislaam yal na yàlla saxal ñu incha allah ci ànd ak sëriñ ci yu baax yi ku nekk tarixa bi nga nekk yal na yàlla may la si sàkkutee foofu si barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Sénégal réew mu baax la dem région boo dem am na kilifa bu fa feeñ am na kilifa bu fa feeñ boo demee Fuuta Cheikh Omar Fouti yu ma ngi foofu mu ngi foofu moom rek doyoon na ci kilifa yàlla feeñal Cheikh Seydi Hadj Malick moom rek doyoon na ci kilifa feeñal xaadimu rasul yàlla feeñal xaadimu rasul moom rek doyoon na ci kilifa yàlla feeñal maam Abdoulaye Niass ak njabootam moom rek doyoon na ci kilifa yàlla feeñal Mohamed Mohamed Seyid mi Mohamed Seyid mi na Gunaas. yàlla feeñal kilifa xaadiri. yàlla feeñal kilifa xaadiri. yàlla feeñal Maolana Cheikh Ibrahim sama sëriñ. yàlla feeñal Maolana Cheikh Ibrahim di sëriñam. doomam yu jigéen yëpp. mu ne doomam yi jigéen yëpp. wattu nañu alquran wattu ñu ngi ko wëttee bu ñu nekk ndaw. ñu ngi ko wëttee ba ñu nekkee ndaw. karaama nee aminata nag. karaama nee aminata nag. mooy jël ay mag. jël moom mooy jël ay mag. nekk si bu sëy. nekk si bu mu sëy. yore ay doom. yore ay doom. di leen yar. di leen yar. saxal ci seen dënn. saxal ci seen dënn alquran. wallaahi loolu ndimbalu yàlla la. mu ne wallaahi loolu ndimbalu yàlla la. yal na yàlla saxal loolu. yal na yàlla saxal loolu. sëriñ bi ne bu ñëwee fii xolam dafay sedd guy. damay gis ay ay soxna. dafay gis ay soxna. mu wóor ma ni dalu woon alquran bu ñu mu wóor na leen ñii daluñu woon alquran ba ñu nekkee ndaw. bëgg bu ñu bëgg yàlla. wante bëgg bu ñu bëgg yàlla. bëgg yonent bi bëgg yonent bi. bëgg alquran bëgg alquran. moo tax ñu nekk mag ñu laxas moo tax ñu nekk ay mag yu laxas dem jàngi. daan naa wax na wax ne. Euh, jàng du wees. jàng du wees. wante jàng yi dana wees. wante jàng dana wees. loolu jógee naa si tey. loolu nag tey jii jógee na si. jàng du wees. jàng du wees. jàng du wees. yal na yàlla barkeel leen. yal na yàlla barke alquran wàccee barke alquran seen njaboot. si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi ndokkeel ñëpp. di ñaanal yàlla ñëpp. di ñaan sunu koor yal na ko yàlla nangu. yal na yàlla defal ñu ko. di ñaan nguur gu bees gi nga xamne peuple bi moko tan yalla yalla deugural ko kenn si ñun amul intérêt nguur gi bañ réussir kenn si ñun amul intérêt nguur gi bañ a bañ réussir yal na yàlla teg nguur gi si siraatal mustaqim sen mébét yi bu nekké dëppoo naa bëgg-bëgg réew mi yalla na yàlla dimbale ci ci barke yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy àdduna yàlla mooy joxe nguur wante bu koy nangu da koy foqarti day lem sa loxo ne la yàlla nii yàlla jox leneen nguur mu ne président bii falu wóor na ma ne musul toog na ma ne musul foog ba toog ba foog ne moom mas naa mën naa nekk dina nekk président ñëpp yaakaaroon mooy nekk président kun ñëpp yaakaaroon mooy nekk président adduna bi yëpp bu ñu ñu dajaloon pour jox ko yàlla jox ko ko. muy Sonko muy Sonko. amagu ko de amagu ko de. ku xam ni foogu ñu woon ni dana ko jot. ku nga foog ne xom foog ne foogu ñu woon dana ko jot. jox ko ko te yàlla dogal ñu jox ko ko jox na ko ko ci coobareem mu ngi ñaan Sénégal nañu nekk benn bopp o naam opposition mënul ñàkk wante nañu dimbale nguur gi ba yàlla may seen mëbët dëppoog bëgg-bëgg yàlla ci biir réew mi ba yàlla def dëpp seen dëpp dëppoo bëgg ak dëppoog bëggeelu yàlla ci biir réew mi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wowul ko nag parce que moom politicien la moom du politicien wante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 ولا يعوده حفظهما اللهم اجعل بنا عاجلا في الدنيا والدنيا والآخرة ولا تفعل بنا ولا يا ما نحن له نحن إنك جواد كريم تواب الغوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناسي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإقلال والعزيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناسي الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإقلال والعزيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هذه لا صدق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين يا رحمن والحمد لله رب العالمين آمين يا ربي ما شاء الله أنا لا في الله يا رب